rawatina suñ bokk soosee di leen wax mbaalin mbandinkoolu anakak mooy laalu mbaalu jay la mbaalu tantu la di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa tënk na lu bëree bëree bëri si émission bi nga xamante ne émission xam ñëw seen programme bi toog bi ma lay jëkk laaj mooy tey ci mbir mi nga xam ne mooy seet mm-hmm. parce que seetkat yi bëri nañ lool mm-hmm. ku nekk am ak li ngay seetee seen programme bi si ban seet ngay seet waaw alhamdulilah li ñuy def ci wàllu seet bëri na seet bëri nay buntu am na ñoo xamante ci istixaar la ñuy jaar am na ñoo xamante ni dañuy seet seetu ramli am na ñoo xamante ni dañuy def si ndox bëri na ay façon am na ñoo xam ne ay téere lañ yor di seet waaye ñun dañuy def ramli dañuy def istixaar ñaari buntu yooyu ci wàllu seet ci la ñuy yëngatu ndax doomu aadama bi lépp loo xam ne mi ngi koy dugg war na ko seetlu ak lu moo doon balaa mu ci dugg rek war na ko seetlu seet mooy bunt bu njëkk ci wàllu jëmmi doomu aadama nit bu ñëwee si yow wax la soxla wala si yow ñëw si yow jaaxle li ngay def mooy li njëkk mooy nga xoolal ko xool la mooy gàllankooram xool ban bunt ngay jaar pour ay dem faju waaye soo ko seetee loolu doo ko mën a xam il faut nga seet pour gis il faut nga seet pour xam il faut nga seet pour xam ban yoon ngay jaar ba dimbale ko moo tax ala kulli xaal ku ñëw si ñun foo ngi seetal la mënut a ñàkk. waaw jërëjëf Cheikh Boukhar Mané mhm. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la solo dëgg la dëgg la dëgg la dafa am solo dafa am ak lu mu mënoo dugg ba ci ay soxna ba ci ay kër doomu adama dugg dara ci ñàkk ci def seetlu seetlu moom mënul ñàkk ci mbir di balaa dugg ci dara il faut mu xool ko boo ko xoolee ci nga baax na baaxul ci la ñuy xool ban bunt lañ mën a jaar moo lox baax macha allah. jërëjëf Cheikh Bocar Mané euh, tey nopp dafa bëri ay façon mhm. mhm. la ci wax rek wàllu nopp man bi ma ci yor du weesu ñetti fan sa aajo faju bu fekkee koo xam ne yéen a ngi nekkoon moom ay coow ci benn jox soo ko defee incha allah sa aajo dina faj bu fekkee ku la wan ginnaaw la suñ la liggéeyalee balaa juróom-ñaari fan dina ñëw même bu fekkoon ne dafa jël bagage mi sax dem dina ñibbi si si këram parce que noor dafa nekk loo xamante ni dafa baax parce que nga nekk ni ngeen am ay jafe-jafe ngeen nekk ni nga xam ne mu mun nañ juboo bëral ci kër yi mais incha allah képp ku ñu si contacté boo ñëwee dina dimbali baax a baax am na ñoo xamante sax dañuy gis nit bëgg ko bëgg ko takk mu am ay jafe-jafe incha bu ñu wooyee rek am na buntu la bu ñu ko jaarale balaa ñu def juróom-ñaari fan aajo dina waaw. nga ne ñoo koy yëngu ñu si wàllum sunguf la ñuy liggéey ci fan ci waaw damay liggéey ci alxuraan te xam nga ne duñ duñ ne duñ liggéey ci sunguf parce que euh, aaya bu si nekk. Uhuh. am na ab reen bu méngool. mais loolu nag il faut nga xóotu ci wàllu xam-xam dëgg. pour mën a xam loolu nu mu nekkee. Uhuh. parce que am na suratul fatiha uhuh. moom bokk la ci li nga xamante ni moom ngeer la àndal ndax ngeer moo moo njëkk ci garab yi kon loolu il faut nga nekk koo xamante ni gëstu nga ci baatin xam nga baatin bu wér bu mën a xam loolu moom damay yëngul ci wàllu ñaar yooyu yëpp parce que li may liggéey day ànd ak alxuraan day ànd ak sunguf mais sunguf bi yëpp dañ koy teg lépp ci alxuraan lañ ko teg moo xam ne ñuy liggéey ci wàllu alxuraan la ñu gën a yëngu ak suñu wàllu course parce que ku wax alxuraan dañuy wax jaamu yàlla ñun dañuy jaamu yàlla nit am na soxla yoo xam ne sangal du ko faj am na soxla yoo xam ne sunguf du ko am na soxla yoo xam ne lu dul course gis koo xam ne naan sangu naa ba sonn ñaanu naa ba sonn def naa lu ne sama aajo mun dafa ju kooku la damay la mooy course il faut ñu ko riyaada wala ñu defal ko xalwa na faju kon dañuy yëngatu si ñaar waaye dafa am soxla yoo xam ne lu sangat kese koy faj il faut xam loolu am loo xam ne il faut jàmm bi wéetal boobam ñaan ko pour ñu ooyee ba ñu seet ko rek dañu mën a xam ba mu ngi jàpp faj aajoom boobu am na soxla yoo xam ne dañuy gis day jar tuuti rek wala. waaw xam nga day dépendre ga hmm. bu fekkee dañu la seetal wax la say sarax sarax yi loolu bokk ci loolu mënuñu ko nekk laf bu fekkee ne xalwa la ñàkkul ñu ci biir xalwa ñu ne kii ay mbiram saraxam nangam nàngam nangam mais boo xamee sarax yooyu nag bu ñu la ci wax moom nga wax rek ñu def ko incha allah aajam faju loolu la. jërëjëf si si euh, si euh, Cheikh Bocar Mané. Hmm. Euh, Cheikh Bocar Mané ñu li hmm. hmm. yi tey muy liggéey nga xamante ne ubbeeku. waaw man li ma ciy liggéey ci ay njaq laa koy def. ay njaq laay def yoo xam ne képp ku ma ko jox soo ko sangooyee yàlla dina ubbi sa buntu wërsëg yàlla dina yaatal sa wërsëg yàlla dina yokk sa wërsëg te loo dellu ginnaaw loolu moom maa ngi la koy wax ay njaq la yoo xamante ne yu ñuy liggéey ci ay xob ci ay reen ci alxuraan am lu ñu ko liggéeyee dëbb ko def ko sunguf di ko joxe képp ku sangoo wax ne ñu ngi koy sangooyee soo ko sangooyee ci at bi di nga ubbeeku ci at bi di nga mës a am loo mës a am te yàlla dina la yëkkati ba ñëpp dégg la incha allah mm. waaw. kooku bu ñëwee bu leen cat ku mu jàpp dafa am loo xam ne la koy jox nga sangoo ko. dinaa la làmmili béy. dinaa la juróom-ñaari puso. dinaa la juróom-ñaari socc yoo xamul boromam. juróom-ñaari xeeru tër teel teelu tër maam teel gas gas ba sonn amul ndox. dina am ciy liggéey def la ko suñ la ko joxee la baax mais pour loolu am mu dem loo am du toog bu ay million duggoon sa loxo mu doo xam fu mu la aw dafa am saafara bu ñu lay jox nga raxasoo ko soo ko raxasoo balaa juróom-ñaari fan lépp loo am dina toog te dana fekkante waaw loolu yoon boobu lañ ci wax waaw jërëjëf Cheikh uh-huh. a ñibbisi uh-huh. am kayit uh-huh. wala moom muy ñun moom yaakaar naa balaa weer kayitam sotti waaw balaa weer am na yoon boo xam ne boo xamante ne ñu woo na ma ne ma sëñ bi dem moo am na ak keroog bañ jokkee balaa bañ bañ jokkoonte man ak moom balaa weer la am kayit maanaam ñu koy liggéey yàlla ñu ci may ndam képp kuñ si woo ak bu mën a doon balaa weer di am kayit incha waaw lu lu wér loo xam ne boo ko liggéey balaa weer danga danga am kii bu fekkee wàllu visa dafa am lu ma lay jox loolu ñaari kaw yi ngay am ci lañ jël téere ko si loolu li nga xamante ne mooy mbirum këyit ñu ñëw si li nga xamante ne mooy góor lay jël rek bu fekkee judduwaale ko su fekkee judduwaale la ko man mënuma kaa faj su fekkee judduwaale wu ko suñ ñëwee dinañ ko jox ay te suñ ko joxee traitement dinañ ko dénk wala ne ko nag am na ñu bëri ñoo xam ne ci caaxaan nañ ko jëlee nee nañ caaxaan baaxul caaxaan moom amul lu mu mënul def nit ñu daal bu yemee rek le nga yaakaar naa loolu war kaa mën a def am na ñoo xam ne nag feebar la si ñoom ñooyu buñ ñëwee garab yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox boobaa incha allah dinañ wér balaa benn fan ñaari fan nga commencé daal ci incha allah waaw mais ñu euh, rab da koy def am na ñoo xam ne rab a leen ko def rab day def lu raw loolu sëñ bi rab dina tee góor rab dina tee jigéen ba ñu am doom rab dina def loo xamante doomu aadama boo xamante ni li mu liggéey mu yàqu am na ñoo xamante ne mën rab bi mën leen bàyyi seen wàllu wërsëg di dox te it duñ mën a nekk benn jëmmi doomu aadama am na ñoo xam ne mënuñu am jëkkër am ñoo xam ne mënuñu am jabar rab da koy def mais incha allah loolu képp ku ñëw si ko xam parce que suñu yat gii guñ téye ku am rab boo ñëwee dañ xam ne am nga rab parce que am na lu muy su ko defee rek dañ xam ne kii raban ci moom boobaa def am ñu ko jox incha allah mu mu sant yàlla bu baax. waaw. waaw li ci nekk bëri na li ci nekk yëpp mënuñ ko wax. Hmm. li ci nekk ko wax waaye li ñu mën mooy li ci ne moom. Hmm. lii fu fu mu ne. daal kéemaan a fa nekk li ci nekk yëpp mënu ma ko wax waaye daal képp ku ñëw ci man sax bu ma neexee bari laa seetal ci yàlla bi laa xool li na si yow dinaa xam incha allah maam nekk na loo xamante ni daal lu siy mbër mënu ma kaa wax waaye képp ku am aajo incha allah boo tegee sa tànk wala nga liggéey ñu sa aajo dina si li mhm. dafa mhm. wër ba sonn amut. te am naa di aajam dina faju. waaw ah, sangatu place dafa am sëriñ bi am na loo xamante ni dañ koy liggéey ci ay ay ci ay ci ay garab mhm. rawatina garab yoo xamante ni am na garab bu ñu daan manque lancé garab goo xam ne boo ko jébbee balaa fukki fan ak ñeent day saxaat te garab gi benn rab du ko lekk ci kaw suuf amul benn rab buy lekk garab googu dina am lu ñu jël am lu ci liggéey suñu ko liggéey ci soo ko sangooyee balaa ñu def weer dina am mu ne laa koy liggéey xëccoo marché xëccoo nangam bëgg a falu bëgg def nangam kooku sama course laa jël ñëpp ko liggéey ko su ma liggéey incha allah dinaa la fal soba yàlla waaw man sama course danay day fal day folle. waaw waaw. jërëjëf Cheikh Bocar xam mooy 77. 698 29 28. fi muy dëkk fi nga xamante ne mooy Ouest boo ñëwee si village Dore bi incha allah boo di li nga xamante ne tuuti mooy góor goo xamante day mandi day mandi day naan sangara bu ko bàyyi wala comme day jël alal jàmm bu ko mhm. dafa am saafa bu ñu koy jox mu naan ak bu muy sangoo am turam ak turu yaayam dina am aaya bu ñuy liggéey ci faatiha dina jub kocc lépp lu ñaaw ci dana ko bax incha allah. jigéen ko xamante ne mënu fex ba am jëkkër. waaw loolu waaw dañ koy xool bu ñu nekkee rab la sëñ bi dañ ko xam sànq wax naa ko ci wàllu rab ba ñu ne bu ñu ko xoolee dina amee jigéen ñam rab danañ jàpp ba li ñuy téye dañuy yéex am jëkkër mais su ñëwee suñu incha allah dinañ ko traité ba li mu bëggoon incha allah dina ko am soobu yàlla. jërëjëf Cheikh Mhm. Euh, mhm. mhm. waaw li ko jaale waa axlu làmb yëpp ginnaaw bañ ko jaalee waa Sénégal yëpp gis nañ nu mu doon sonnee ci mel noonu ci bés yooyu ku bëggoon dama naan ku bëggoon loolu la ci wàllu làmb waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla jéggal ko ay rëcc rëccam yàlla yàlla yàlla na yàlla teg loxo ci njabootam euh, fi dem yàlla na ko gënal fi mu jógee euh, ñi fi bàyyi yàlla na bàyyi ci jàmm ak ñu ngi koy ñaanal bu baax njéggal waaw loolu daal lañ amoon di ko wax di ko métti lu tamit di ko jaale mbokkam yépp waaw jërëjëf allah am nañu yaakaar dina jóg hmm. waaw parce que it am na jom aadama lañ ay Sénégal lañ yoo xam ne ci loolu la yëngu ñu ngi wax woote ñëpp ñu si doon jàpp ñu jàpp si rek parce que buñ si no si ñu doon yëngu moom bu doxatul rek day xaw a day waar kon ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan daal ñu si ñëpp jàpp yàlla yàlla defal leen jàmm euh, li li ci gën a am solo mooy ñu jaale ki fi jóge rek ñaan ki fi jóge yàlla xare ko àjjana waaw loolu la ñu amoon nañu wax xew-xew yi commencé mais ren daal dëkk bi dana baax incha allah dana baax baax fay la nuyu bu baax macha allah. di nuyu suñu caméraman bi di nuyu ñëpp. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu.